ngeen def mbokk internet yi nga xamante ni jamono ji yéen a toog di seetaan suñu site bii di Sénégal 7 amati mbégte contentement saa su nekk di ànd ak yéen ci suñu programme comme ni ngeen ko xamee seen bëgg-bëgg nee naa leen mooy dëgg-dëgg suñu yittee ci noonu lépp loo xamante ni yéen internet Sénégal 7 bëgg ngeen ko ci la dox du matin au soir ci noonu fan yi yépp yéen a ñu topp naan ñu indi Ani Karamba Ani Karamba ñu def suñu déplacement de Dakar à Mbour ñu ñoo seet si ki nga xamante ni moo di Karamba Dansokho ñu am mbégte nag may ñu en exclusivité ndax ñoo ngi ko fekk ci liggéey bu baax ndax day parele 11 mai incha allah benn affaire boo xamante ni Sénégal ñëpp ci gis seen bopp du ma ne sax Sénégal euh, na am sénégalais yi ñoo ci gën a jëriñu waaye Afrique ak le monde entier dina ci jëriñu bu baax a baax ndax koo xamante ni da daan fajoo 210 000 ne la léegi boo ñëwee jëndal rek ticket consultation faj bi ñu jox la ko gratuite. loolu yaakaar naa le monde entier ñoo ci war a bénéficier wu ñu rawoo war a waxtaan ak moom aussi également ci ñi nga xamante ni moo ngi woon ci ginnaawam nag ba tax mun a tekk tekkaaral noppetu waxatul benn yoon ci koo xamante ni foo ko fekk danaan wax wax dëgg neex yàlla wax moom suñu borom jagleel nag ko comme nu muy jëfee ci liggéey bi noonu lay waxee nag ci liggéey bi Karamba moo ami mon frère taalibe Serigne Fallou taalibe maam Cheikh Fall ñu ngi lay ziar ñu bale nga nuyoo bokk Sénégal yi waaw ñu ngi lay ziar di wax ni bismillahi rahmaani katil micro bi tuuti ñu ngi lay ziar di wax ni bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi mina sheytaani rajim ñu ngi lay ziar di la nuyu di nuyu bépp sénégalais ak képp ku dul sénégalais mm-hmm. di nuyu peuple sénégal ak fu dul peuple sénégal ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni seen ndongo bi gën a naw moo leen di nuyu ban ndongo la muy karambaa kan mooy karamba mooy dansoxo dansoxo mooy kan mooy anin ko moo leen di jox loxo di leen nuyu mm. di leen wax ni namoon ngeen ma namoon naa leen tey la ko yàlla tuddaat waaw ñu dem jëli ko eh, karamba la moo tax nga ne jékki-jékki rek na tekk te ku nekk xamoon na da nga façon ci réseaux sociaux yi mm-hmm. lan la dañ la dañ la menacé ba tax ma noppi wala danga dem ba ci biir suñu borom wàññi sa doole wala xam bi nekkatu fii lan problème bi tekk tekkaaral bi lu ko waral xamee wuñ la loon dëkkara ba doo ragal de. ceelu mag du ay nelaw. ah. lu mag du ay nelaw calaw lig day law. ah. dégg wax bi. ceelu du ay nelaw. waaw calaw lig. waaw law xaw ma ko. dina am dina am ñoo xam ne dañu xam calaw lig benn garab buy law. mais lu mag du ay nelaw te calaw lit foo ko fekk day law mook caxat ñooy am yow sa bos ban la ci cell mag bi la wala cellaw nit déggoo li ma la wax ñaar yooyu laa boole ah. cell waaw ak cellaw nit cellaw nit maanaam moo xame loo xamante ni man nga ko jiwee fii mu raam ba àgg fële te buy egsi doo ko gis kooku mooy mu sëddu xeet bërët lay def nga yaakaar day dem mën a tekk taxaw di la xooli bët boo koy gisaat mu nga feneen koo koy karambaa ah yow dañ la séntu fee ba gis la fële rek nga def cellaw nit déggoo li ma la wax. waaw koo xamante ne tey yow fii nga koy séentoo comme tey tey tey koo séentoo Dakar muy Casamance nga séentoo ko Casamance moom mu ngi xoolal. mu ngi Australie naan Dagana. laa ilaaha illallaah. accord ah, mais ñu bëri dañ na sa xam seen lan nga ñuy wax ci loolu. ñooñu ñooñu seen xel mu gàtt lañ ñor rek sa xam daa wàññeeku wala sa xam wàññeeku la on soreetul. am na sax ñoo xam ne waxuñu wàññeeku dañ ne amatoo xam-xam ñoom. Ah. waaw loolu. loolu xanaa xamoo question bi nga ma posé man dafa maa neex xamul tax question bi nga ma posé mu neex ma. Mm. soo bëggee ma wane lu doy waar wala boo bëggee ma def loo xamante ne tey day yéem àdduna. Mm. nee ma xamoo dara. wala nga ñëw ne ma sénégalais yi. Mm. nee nañ yow xamoo dara. wala nga bëgg maa liggéeyloo si football ma dajeeg équipe nee ma waa équipe bee nee nañ xamoo dara dóor kat nga. wala yow karambaadoo dara boo ko defee ma wan la xam-xam. Ah, ku la tëkku daal nga bëgg yow. déggoo li ma la wax. yoruma xam-xam bu xeexee. mais boo ko laam-laamee dama la koy won ak si noo ko bëggee ak heure boo xamante ne yaa koy tànn tànnal sa heure bu la neex ak foo ko soxlaa xam nga tey ku xam-xamam di wàññeeku mooy ku jàngi xam-xam tey ku xam di wàññeeku mooy ku tarbi ji xam man damaa juddu si xam-xam màgge si xam-xam donn si ndey donn si bàyyi kenn jàngaluma may jàngalaate jinne yëpp may seen bàyyi jineew faa jineew bemba hmm? seul mara boo xamante ne tey su ma neexee fii sama téléphone bi ma toog nii fi laay faj nit léegi mu wér léegi. ci téléphone rek. loo gën di màgg xam-xam bi gën di pànk loo gën di màgg day gën di pànk lu mu gën di pànk dañ koy gën di wone te lépp dina leer yàggatul léegi semaine rek Sénégal ñu gis lu doy waar parce que allah ji fàll bi ma yaakaar. li ma yor si ay jinne mënuma kaa wàññi. instant bi ñaata déggoo li ma la wax li ma yor mënuma ko wàññi li tax mënuma ko wàññi te tey lañ départ si mënuma ko wàññi bi da ngay teg sa baaraam si mënuma ko wàññi bi boo tegee sa baaraam si mënuma ko wàññi bi bu la ko jaralee bala onze soo ñëwee nga ne ma karamba yor nga jinne wala yoroo jinne waxal say jinne ñuy def ma defu jinne yi ñuy def ngay gis en direct nga filmé ak sa média ak koo mënti daal lu ne faa déggoo li ma la wax. jinewu faa jinewu bemba karambaɗeji new faaji new ɓe mba karamba cee muso muso naflo sa ko bama warima sa ko bama basiru ba ko bama cigi dan soho anin ko karamba cee kondaron muso muso kondaron ya fenjugu ya fenjuma ya fanjumu ya fanjuma karamba naflo sa ko bama cigi warima sako bama cigi basiru bam mako bama cigi da soho anin ko karamba simbo tarawore ndele tarawore ceenodi karamba ifokoli kumba ifokoli daba i jamiñankoli koli bara ba koli bara tan la fe andi fere fe kur la jambani kur la simba karamba ñaal wulu fa ñaba wulu fa karamba jine tigi karamba basi tigi karamba ya fenjugu ya fenju ma karamba mbake san san karamba léegi léegi hmm? léegi léegi la jore sa téléphone nga oote fu ma laa tëdd ma faj léegi fi ma toog nii tànnal ku la neex ku feebar barki salaatul faatiha ba faj ko fi ma toog yaa feeñugu yaa feeñuma yaa fañumu yaa fañuma karamba mbaakee sans sans karamba billahi wallahi tallahi bu amulee yàlla bu émission bi àndu d'accord euh, kii li may li may wax nii bu amulee xoolal ku la neex ku feebar ma faj ko léegi en direct émission bi appel vidéo yaa feeñugu yaa feeñuma si loo xamante ne du tricage si lépp luy dëgg ma def ko si dëgg su ma si na mee def loo xam ne caaxaan na balaa émission bi àgg yàlla na yàlla yóbbu sama bakken bii Djinéew Faye Djinéew Bemba Messi <laughs> man maay taxaw di faj sama téléphone man maay taxaw di faje suuf maay taxaw di faj a xeer maay taxaw di faje ndox kese maay taxaw faj nit ba mu wér te du jàng benn saar parce que mënuma kaa tari xam-xam boobu nan lay jeexee hmm. waaw boobu nan lay jeexee d'accord lii xam-xamu teen la loo gën a wàqi da ngay gën a jot ndox man xam-xamu teen laa yor loo gën di wàqi di gën di jot ndox ndox mi di gën di neex. Eh, gars yi xam-xam bu ñuul la te xam-xam bu ñuul baaxul. déggoo li ma la wax man sëtu ceddo laa. loolu la gars yi di wax. déggoo ma la wax sëtu ceddo laa damaa boole li sëriñ dajale damaa yor bu ñuul yor bu weex yor bu xonq yor lépp. laa boole di si liggéey xaatim jànguma ko bu ñu yéegee si kaw léegi yéeg nañ si kaw bu ñu yéegee si kaw après mu won la nga xool loo bëgg si xaatim dama koy bind te jànguma ko yaa ngi may dégg bu ñuul bi su ma neexee lu ma neex laa si liggéey xooluma kii way sàmba xooluma kii way demba bu dee deret day laaj dama koy sotti bu dee sàngara ma sotti ko li ma bëgg a def dama koy def ak koo manti doon mënoo si dara yàlla kese moo si man dara far force ba màndi wala toxoo ba tuxoo sàngara ba ne taj doo mën a liggéey. non bul ne sàngara kenn du ko tux da naan tuxoo yamba. waa tuxoo yamba laa wax eh, nee nañ boo naanul waaw déglu ma ba ne taj wala tuxoo sàngara sàngara tuxoo yamba boobu doo man maa lay corriger. waaw parce que yow yaa a corriger da nga naan da nga naan ma danga nga naan boo tuxul yamba. waaw naanoo sàngara. waaw doo liggéey. waaw gars yi ñoo wax loolu ñi ko wax noonu. waaw ñoom seeni yaay. Hmm. loolu la naan dencal seen baay. Hmm. waaw seeni yaay loolu la daan dencal seen baay parce que seen baay da ko daan utiliser moo tax bu gisee ndaw lu siy dox da koy xam. waaw. mais yow loolu mu soo ko utiliser. déggoo li ma la xabaj laay def xabaj. xabaj mooy. hay. non xam nga ñuy seetaan duñ comprendre moo tax may. laaj waaw xabaj laay def xabaj. xabaj. xëbaj laay def parce que doomu tuur laa damaa juddoo si tuur damaa gëm yàlla gëm yante sama côté liggéey lu mu laaj dama koy def li ma ñor mooy soxla client bi na sotti li si des man la ak sama digganteek yàlla suñu boroom su ma deewee yàlla bu ko neexee na ma def xalu safara loolu man la concerné mais am naa xol bu sell am naa xol bu rafet li si des amalu ma njariñ amalu la njariñ voilà d'accord c'est très important voilà gars yi ne yow ak Kounkandé yéen a fi nekk ndoo woon waaye dañoo dem ba li ngeen utiliser nekkul dëgg ba yéen ñaa ñëpp yéen a fayandoo waaye fu mu toll nii ñëwaat ak ngeen parce que Kounkandé jóge na prison ba ñëw nee nañ est bu nga ne mu nekkee prison yaa ngi ko doon woo wala demoon nga seet. xanaa xamoo yow sa émission bi bu yàggee sax yow da nga may yàpp Ah. xamoon na nga may yebe sa émission bi ngay def nii. Mm. parce que soo su ma bëggee def soo bëggee def ak man émission ku toll ni Karamba Messi. Mm. nga koy tudd di tudd Kunkande bu yàggee yow nag may yeblu wala nag may eh, xeeblu. non déglu ma non déglu bu dee Kunkande dalaa fay xaalis pour nga may ko buzz. man sama yoon nekkul Kunkande du si man lay jógee. demal nga xool waaw déglu ma déglu ma rek demal nga xool si ah. internet bi. da dem nga gëstu internet bi. nga xool Karamba li muy def. Mm. may naa ko ñu nekk si salle bi ba si yow mii ku si nekk tànnal sa juróom-ñaari maam nga xool ko ko si mu sa def. léegi da nga xeeb Kounkandé. baayam sax du ma moroomam. Hmm. déggoo li ma la wax bàyyi Kounkandé sax man Karamba du ma moroomam. internet du fen TikTok du fen Instagram du fen demal nga xool Karamba depuis 2018 li ma faj si ay nit xajul sama kër Kounkandé kum ma sa faj. bëgguma tudd seen tur bu yàggee dañ may yàpp lu si wala ñoom bala ñooñu du ma ñoom bi ñuy liggéey liggéeyuma dañ fee nekk ay fen ma ñëw si dëgg te képp ku ñu warante dëgg la wala dëgg la 11 mai barke Serigne Fallou gratuit laa koy def bu ma xandalul jinne ba ko Elise ma xam ne man. li ma yor ay fen la soo ko bëggee xam rek invité naa la la 11. lan la yéen ñaa jubóo woo leen. kooku du si man lay amee buzz tànnal beneen Serigne ñooñu ay duulkat lañ. Hmm? hey. boo may wax soo bëggee suñu émission neex bul ma wax benn duulkat bul ma wax benn naaféq bul ma wax benn fenkat man maa taxaw ma sol may bind si Jamel Var depuis 2018 laa commencé liggéey ñaata nit laa faj ci àdduna mënuma leen a wàññi. Hmm. ñaata coupe jël si football ñaata gaal laa yor di leen liggéeyal ñaata nit laay liggéeyal si diaspora bi mënuma ko wàññi. da ngaa mos a dégg ku ne Karamba dafa maa triande Kounkandé lu ko yóbbu kaso xaalisu jàmbur la lekk nañ ma yóbbu kaso. Hmm. mana mana du moom kim mu dangay dox ñu lay joxañ ñi dañuy xaar. loolu yi di leen boole naan ay jumeaux ngeen. hey lii lan la. lii lan. lii la. yaram. loxo bu ñuul kukk mm. bu ñuul kukk day si boole kukk. kukk ñuul bu àgg bu àggul si kukk rek ñuulagul. bi ngay wax noonu bal la. bu xees. jigéen ñee ko moom jigéen nee ko moom jox ko jigéen ñi. d' accord mais Koungheul du tax ngay fayeeku deux cent dix mille. maa ngi naan Koungheul sax tooñ naa la de déglu ma karamba déglu ma xam nga lu tax su ma neexee damay fayeeku sa waaye déggoo li ma wax. boo nee lu tax ngay fayeeku deux cent dix mille. bari na de ak fi Sénégal waaw déglu ma tama taxaw fajal nit malaatam laaj ko deux cent dix mille mu war a fay deux cent dix mille fay ma huit cent mille. Hmm? waaw. jóge ba France raatale sëriñu France yépp jóge France jóge fi dem Gambie toj Gambie jóge Gambie dem Casamance jóge Casamance ba dellu si waat samay tànk la mujj xaalis bu ne mu ñàkk ko mu ñëw ay minutes laa faj soxlaam ñaata la deux cent dix mille bi ma fajee soxlaam dani ma deux cent dix ma ko wax mu ne ma huit cent mille laa lay jox su amul yàlla yoon si ñi ko mën ak ñu ko mënul. yow sa yoon yow sa yoon ci lan la yoon nekkul si loolu xam nga sama yoon lu mm. li may def. mooy ko am deux cent dix ñëw ko amul toog. ak boo ko amee sax am sax taxul nga ñëw. lu tax nga ñëw. neexal ma. nuñ lay xale neexal ma si sama xam-xam bi ma yor. mbaa nga dem jox ko sa xaalis sëriñu duulkat yi ñu lekk ko. Hmm. waaw. wóolu nga sa bopp de. bopp yow xa fàtte. wala yéen eh, xamu leen ma xam nañ la mais. dañ la yéen xamu leen ma wala yéen da ngeen maa fàtte. xoolal Sénégal si sama maas si sama aas li may def sama ban moroom moo koy def wala sama ban moromu bàyyi moo koy def bu ma deful man Sénégal ba Sénégal daj bàyyiwuma kenn boo yaakaaree yow sëriñ boobu bokkoo si yaa ko jiite tous. wala lu nga fi def kenn def ko fi nga bëgg a wax. tàppee sa téléphone nga recherche marabout. non damay Sénégal. nga xool kan moo si def lu Karamba deful merci su fab ma jaabel. hey. xanaa da ngaa dof wala yow daa doo ubbi say bët. xam naa xool. yaa xool. waaw laajaat ma leneen. damay wax kii xanaa xamuma. hey. xanaa xamoo sëriñ yi ngay tudd xanaa xamoo sëriñ yow yaa leen di may bër moom moo ñu maa ngi ñoom du ñu benn xam nga moo tax maa ngi ñoom du ñu benn benn ñoo ma mag foofu ay paalañ am na koo xam ne yaa ko mag Mara Niass kan Mara Niass non Mara bëgguma wax si moom sama nit la sama xarit la mhm. parce que maa ngi bëgg sama bés bi sax bëgg naa mu ñëw fi Mara Mara sama nit la ah c'est bien Mara sama nit la mhm. sama xarit la bu nangoo mën naa doon rakkam mhm. bu nangoo mën naa doon rakkam bu nangoo tamit mën naa doon sama rakk man ma doon magam parce que xas nañ ko ba commencé dund ma ak moom. amuñu d'accord kon da ngeen am ay relation yi bien. amuñu kii boobu depuis depuis kii daal boobu ba léegi maa ngi am ay gars confrontation ba léegi. te liñ seq noonu moom laay moom laay xel di dund ak moom parce que aw kenn ak xaar ma xaar ma yàlla xaw ma xaar may ma jaaga aw ma kaak kenn. très bien waaw waaw. c'est important lan moo tax ñu ne yow yaay borom mbuur. maa ko moom. noo ko moomee yow. li ma am ban ministre moo ko fi am wala ban député moo ko fi am wala ban maire moo ko fi am. muy la ngan bi nga am rek ñu topp. ñaata public ñoo may topp su ma génnee fii. ah ba loolu bàyyi bi nga am la taamuñ ko. maa ko liggéey borom 600000 taalibe jinne yi ngay waxal. 2019 laa am depuis 2019 laa yor 600000 taalibe jinne te année bu nekk ñaata jinne laa siy jàpp mu ngi si internet bi mu ngi fépp na ko gars yi recherche. depuis 2018 laa commencé jàpp jinne. waxuma deux mille dix huit. deux mille vingt ba deux mille vingt et ñaata jinne. ñaata. deux mille dix neuf. Hmm. ba deux mille vingt ñaata jinne. deux mille vingt et ba deux mille vingt deux ñaata jinne vingt trois bi ma may leen ko bonus. moo tax moo waral bonus bi ma war a def man benn jinne bu ma maa jàpp Kumba Bang. ma manuma lim jinne ma jàpp man maa leen jàpp man te kenn mënu si dara yàlla moo ci man dara yenante bi ak sama sëriñ muy sëriñ Fallou macha allah nga def lu ne ci sport nag wax dëgg nag yàlla félicité nañ damaa jël coupe yépp waaw ma rek ma ñëw rek waaw jaloore borom moo koy nettali boppam nettalul loo nettali nettali yow da ngay am looy desal te bëgguma nga desal bu yàggee dama yaakaar da nga may nëbbal yow coupe du coupe loo ci def sa jaloore yow waxal man 2018 ah. 2018 loo def laa jël coupe ku ban nga jël <laughs> ah. <laughs> leen ko fa tey. <laughs> nañ la woon nga jël dinañ ko teg ci montage bi. wan ko def ci montage bi dinañ ko yow waxal rek dinañ ko teg ci montage bi. 2018. waaw laa jël coupe. ban coupe 2018 laa njëkk a yor équipe si laa jël. mais coupe ko ñii nawetaan. non fi ma dëkk fii Saly. waaw. maa ngi nuyu meeru Saly. meeru Saly maa ngi koy nuyu à parta partage muy sama kilifa. dégg nañ ne yaa far waa di sama lépp muy Ousmane Gueye meeru Saly doon sama papa doon sama kilifa doon sama lépp parce que daf maa bëgg. gars yi nee na yaa ko fal. daf maa bëgg 2018 laa jël kubam ñu naan da koo tànd équipe bi moo ko jëlal 2018 laa ko bàyyi 2019 ma jéggi jëlaat beneen équipe jëlalaat ko même ko fii sali man maa ko def. ah kon moo tax ñu ne la borom Saly. maa déglu ma man maa jël fii maa jël zonal maa jël. départemental maa jël communal maa jël régional maa jël phase nationale maa jël coupe du Sénégal man maa jël euh, nu mu koy waxee sax. coupe d'Afrique. coupe d'Afrique. coupe d'Afrique soo ko waxee yenn sëriñ yi dañuy siisu parce man maa taxawoon ma ne coupe d'Afrique mosul ñëw Sénégal jël naa. coupe mais yow waxal sa jël naa coupe yëpp ba mu des coupe d'Afrique coupe d'Afrique dama koy jël si farfosse bi ma ko waxee yenn sëriñ yi dañ dañuy fenn coupe d'Afrique ñëw na Sénégal. Mm-hmm. maa ko jël su ma neexee. kañ ngay jël coupe du monde. dégg li ma la wax. loolu yàlla moo ko yor si kaw ñu jubal rang bi man maa dugg ndar rawante international bi gën a mag maa fa teg la ñetti coupe jël ko si benn tàkkusaan waa ndar ñu ngi may déglu waa ndar ñu ngi may seenaan ñu ngi may seetaan bépp sëriñ bépp maaraabu bu taxaw di ñaan di xëccoo kan moo mës a jël ñetti coupe si benn tàkkusaan bi génnal sa vidéo maa ko def Sénégal. Hmm? man maa dëkk mbuur tefes di juddoo mbuur tefes yaroo mbuur tefes aalu damay liggéeyal nit ne la suba jën sangam ngay samay mbokk dañ may seetaan man maa dëkk Mbour Tefes man maay taxaw wax leen ko war a dee suba te barki Serigne Fall bu xëy almeere lay fanaani samay mbokk dañ may seetaan man Karamba jineew faa jineew bemba bala ngaa xam nit da ngay dem nga def micro trottoir nga laajte wax la kan mooy Karamba man bokkuma ak sëriñu soo bées yi xam dama laa fay xaalis déedéet fayoo ma dama lay laaj dama laa fay xaalis déedéet dama laa wax kaa ma def émission déedéet sax bëgguma ko maanaam ñenn yi ni ñuy doxee kompaloo wax wax naa la li ma war a def xaw ma xaw ma loo ma war a laaj. Mhm. li nga ma war a laaj man xaw ma ko li nga war a wax man xaw ma ko parce que aw ma jotu kompaloo aw ma jotu wax li nga may laaj si laa lay tontu noo ko dégg sa laaj lu la neex laaj ma. la ragal mais lu ma la tontu tamit. jëlal nga xam ne loolu mooy tontu bi parce que si man si noonu laay doxee. Mhm. man sama lépp loolu la loo xalaatul si àdduna ak loo loo loo corfati si wéyu bëy. Mhm. mais ma mu ngi gaa yi laay déglu damay xalaat ma man maa ngi dem ba mu di la mujjee posé question. ba tey day neex rek man loolu bëgg naa ko gaa yi nee nañ kañ nga gëj a jàpp naar bi ci som bu baax. man waaw dañ naan ci som bu baax suñu waxee. ci som bu baax. waaw ci som bu baax boo waxee foofu gaa yi am nañ dëkk. Hmm. parce que gën naa jàpp ay 20 million yaa gën naa jàpp ay 10 million gën naa jàpp yooyu mais maa ngi tuuti micro bi. ngi jàpp. yaa ngi jàpp téléphone baa ngi nii. duggal ma si foofu exhibit bi. ma xool exibab bi ma neexee. Eh, dugal ma. man man exibab bi. waaye yow doo ma bàyyi yow xamoo ma. Eh, monté ma sa affaire bi. xam nga li tax yii nii du ma bëgg a dugg si côté exibab après daf may sonal balancer ma fii. gars yi dañu naan naan ko kat lay perte mais gañ non. wala sànq li ngay wax ni. li ngay démarrer émission bi rek maa ngi joué benn coupon. coupon ngay joué yow. léegi nii joué naa léegi si ni ñu toog avant ngay démarrer. ay ñaata ngay misé. xoolal ñaata ne sama compte si ko yaa ngi koy seet. xaaral ba xaalis bi bari na de macha allah. waaw dama lay wan sama compte expert rek ñaata si ne. waaw ñu dem xaaral rek ma wan la. xoolal fii loo gis mu verte la la jàpp. yu rouge yi mooy tànn. loo gis mu rouge la bu verte la la jàpp. waaw xoolal fii lii laa wax. un million cinq cent nangam sax. xoolal fii neuf cent quatre vingt neuf mille. Mhm. yi may jàpp laa lay wax de. Mhm. xoolal fii huit cent lan huit cent quatre vingt huit mille. Mhm. jàpp may million de. mais maa dara de. xoolal mu ngi nii ñaata trois cent mille. xoolal waaw sept cent mille. un million dix neuf mille. lii ñaata 700000. lii ñaata 700000 xoolal date beeg yëpp ah, xoolal lépp benn ah, ah, lépp dama lay woon kam ñi nga xamante ni dañoo soxor dama lay dugal si biir coupon bi nga xool ñi nga xamante ni dañoo soxor kam na naan karamba mhm. day kompaloog naar bi wala lii lii ku ko si man da nga koy def mhm. li ay lii da leer na gis naa man man gis naa non dama lay laaj li ay fen la déedéet mu ngi nii xoolal lépp ay coupon la yu may jàpp mu ngi nii xoolal waaw waaw gis nga ko waaw yëpp maa koy jàpp loo seen mu verte wala mhm. am naa perte wala yi perte la. waaye bari nga ay perte tamit de. waaw loolu laa bëgg ñu xam ko moo tax du ma joxe ko. waaw ni may gagné. waaw man noonu laay perte. kon sa mise ci lan nga koy basé. ñu bari dañ koy jàpp ne sa mise yow ci Guinée yi nga ko jàppee. man waaw mais perte yi tamit bari na de kon bu doon Guinée rek. Guinée yooyu day tombé Guinée yu efficace ul. xamul ndax. waaw damay bëgg a jël ay 17 équipes 18 équipes di si jouer. d'accord football affaire yu jinne la. teg match bi jeexul gagné ko. tey mën ngeen équipe bi day gagné équipe boobu première mi mu gagné. Mhm. dugal bal ba quatre-vingt-dixième minute ñu égaliser ko. ak football ñoo ànd parce que football ak sarax ñoo ànd man équipe bu may liggéeyal damay génne ay sarax te mat si xibet bii. Mhm. rarement laa ciy génne sarax laajal ñii ndax mos naa génne si xibet sarax perte. Mm, kon lu ci war doo ko def bu ma xëyee génne si xibet mu jaral ma tey mu dugg si àll bi génne samay sarax ma noo naar bi déggoo li ma la bu tegoon si saw jaww ji ma naar bi. peut-être d'accord ngay dem ci le onze Karamba mhm. lan moo tax nga am initiative boobu parce que li tax ma am initiative boobu <laughs> waaw yaa ngi dégg xalaat boobu lu tax nga am ko déjà lu baax loolu li tax ma am xalaat boobu waaw parce que sànq même waxtaan bi ñuy waxtaan parce que sénégalais yi mhm. dañoo ñu bëri dañoo bëgg man na ko wala man ko dëgg la xam na ko wala xamu ko mhm. ba si sëriñ yi ngay jot a tudd seen tur du ma tuddaat seen tur di leen may ndey bu sama nekk su mhm. nañ ko wala manu karamba seen moro moro seen moro mais invité karamba invité kunkande non suñ bëggee invité ma invité leen mais xam nga lu may bañ waaw ku ñëw def affaire tricage bëgguma ko d'accord vérité laay def mhm. ku si bëgg mën naa la invité mhm. kunkande su bëggee ma invité ko mu ñëw invité ko nag moom lay seetaan invité ko waaw su bëggee kunkande su bëggee mën naa ko invité mu ñëw si sama bis raawul xam nga mën naa invité Ablaye Diop xaas mën naa hmm. invité Mara Niass ñoom ñëpp ay kilifa lañ mën naa leen invité sama bés si bés bi nga xamante ne tey moom laa war a def la 11 mai hmm. incha allahu rabbi si malade yoo xamante ni tey ah. yow jinne la lay dugg yow suwaat jinne dugg la hmm. wala ay nitu guddi nekk sa yaram bi wala ngelaw wala nga bëgg liggéey boo xamante ne tey yow da nga nekk ci wàllu xëccoo moo xam wàllu ubbeeku wala sa yaram bi dañ laa catoo catoo catoo catoo ba yaa gën a ñëw puso soo ñëwee mën nañ la jox garab yoo xamante ne tey soo ñëwee ticket rek ngay dagg. Mm-hmm. soo daggee ticket ñu jox la ko boo bëgg dañ la koy jox yaa xam ubbeeku yaa xam bayre yaa xam affaireu cat yaa xam affaireu seytaane su dee ji su dee da nga koy laam-laamee jinne la wala du jinne boo egsee karamba day jàpp jinne bi def ko en direct en direct nag soo ko déggee faj bi du lépp la ñuy filmer am nit mën naa jóge dëkk ba dëkk nga ñëw faju ba wér nga dem te kenn du la filmer d'accord ku bëgg rek la ñuy filmé mais am na si yoo xamante ne tey. Mm. buñ ci àggee loolu dañ koy wane parce que. Mm-hmm. li jinne bi di expliquer wala lu malade bi di expliquer. day intéressé Sénégalais yi. Mm-hmm. parce que loolu moo tax ñu koy wane mais du question image nit bi parce que soxla wuñ image nit bi parce que ñun image lamb na si internet bi. dëgg la nest pas. Mm-hmm. maanaam lépp dañ koy def pour dimbali jaam ñi nga xamante ne tey. ñëpp nee nañ karambaal li muy faja daa seer wala karambaal li muy faja daa ah, seer. cher na de cher na trop non xamul ndax seer. oh non cher na 210 000 dafa bari xam nga ñaata malade laa laa xëy faj nii benn malade ma xëy faj. benn moo tax malade yi di daw waaw da ngay déglu. ah bu dawee sama yoon nekkul si malade. Ah, bu daw ak bu ñëw waaw wàññil wàññil. waaw bu doon faj kese laay liggéey nga war a wax malade bu daw ak bu ñëw. Hmm. faj moo gën a ñàkk fayda si li may def. xanaa tuddoo football. xanaa leneen leen nekk fi. Ah. man su ma su ma liggéeyee su ma fajee su ma fajul yëpp damay liggéey. waaw yaa ngi may dégg. Mm. faj fubal laa njëkk a liggéey ni ki faj. mais boo gisee ma lay wax tey ñoom nee nañ karambaali mi fay daa seer wala benn affaire sëriñ bu dee Sénégal faj moo la rey xaaj bi yëpp. ñoom ñi dee. yenn sëriñ yi dee Sénégal xaaj bi ñi nga xamante ne doon forcer faj bi faj bi moo leen rey. nu mu leen di reyee. ni mu leen reyee tey. Mm. yow da ngay forcer lu nekkul si yow. tey lan lañ wax faru rab rab amul jinne moo am tey jinne nekk si nit nga bëgg a génne bu dee jinne mu saay saay day tëdd bay bàyyi ba nga tëdd ba guddi mu defal la bagage mbaa mu yóotu say njaboot xool si gën a nooy bopp. d'accord. ana ñu daan faj. Mhm. ana suñu kilifa say batu ak ñeneen ak ñeneen parce que jàpp naa ay jinne yoo xamante ne tey. Mhm. dañ amoon ak ñoom règlement de compte ñu bëri ñoo xam ne tey mënuma ko wax parce que jinne yi ñooy nettali liñ may nettali rek laay waxaat. yow ban ginne moo la gën a sonal sa ginne yi. non kenn sonalu ma si xaaral ma àggali sama question ba pare. allez vas-y parce que imagine la tey. Mhm. nga ñëw fay karamba deux cent dix mille pour mu faj la. Mhm. ñëw karamba laal na la de. Ah. loo ko fay deux cent dix mille. dan moo la topp jinne moo la topp jinne boo xam ne moo yàq sa àdduna moo boole ko sa lépp karamba engagé ko tey nga dem ba ñibbi sa kër. su guddi gi karambaatoo ginne bi attaqué ko doon dina bu bari doole di def kéemtaan yu doy waar mhm. ba ñi may àndal moom dañuy mujjee sës lañ may wax karamba pour ñu àggale lii pour ñu gën a am doole suba da ngay da ngay rayal benn nag mm, deret bi waaw moo war leen rayal benn nag wala ñu ne suwaat da ngay rayal benn xar moo leen rayal benn xar wala suwaat ay ginaar léegi fekk yow malade bi ma teg conséquence boobu noonu tey deux cent dix mille nga ma fay te nag bi ma war a jënd trois cent cinquante mille lay jar ah, sans compter sama oto bi may sol essence ak yeneen sarax yu saw yi muy àndal te loolu fay deux cent dix mille. li may faj lan la ana ndëppkat yi koy def ñaata la ñuy génn ay millions la ñuy fay ñi leen di ndëppal. ay millions. Mm. li may faj dakaar gi nga nekk ñaata nit ñoo siy laaj ay millions. dëgg la lu tax waxu leen daa seer. Mm-hmm. ngeen ñëw ba fekkee ki ngeen xamante si dëkkam bi mu dëkk la dëkk di liggéey man sama dëkk ici c'est moi. hey ici c'est sama dëkk bi ma dëkk. Mm. sama mbay dëkk fi. Mm. sama baay dëkk fi. Mm-hmm. ma juddoo fi màgge samay xarit samay am di jàmm yëpp laa faana mbuur bi tey da nga faa fekk si biir dëkkam. dëgg la artiste bu fiy dugg sax da ngay tànk. jàmm rek laa fi génne. déggoo ma de. Mhm. man bokkuma ak sëriñ bu nekk Dakar luye. Mhm. boo duulee par arrêt la ñuy duul am na sëriñoo xam ñu ngi Dakar arrêt arrêt par arrêt la ñuy duul boo demee waa dem dëkk bee arrêt nga duul. jóge arrêt boobu wàcc benn arrêt duul jóge arrêt Grand Yoff duul arrêt Géejawaay jóge arrêt Géejawaay <laughs> duul arrêt Padois jóge arrêt Padois duul arrêt yëmbal jóge arrêt yëmbal ñu ne ah nga ne xaaral ma jàll te ngeej waaw foofu it nga lii fa arrêt par arrêt la ñuy duul moo tax bokku ñoo Karamba Karamba boo ko gisee si ay vidéo fi mu dëkk lay liggéeyee damay liggéey sama ndey bi ma jur toog sama yaay li ko gën a jommal sama liggéey damaa faj nit nangu beekay sànni na ko doxal kon boo may tudd di tudd ay yàmbar. dëgg la nag wax nga dëgg. yow soo may tudd di tudd ay yàmbar non si man su may tudd di tudd ay yàmbar. ñoo mm-hmm. xam ne tey. Mm-hmm. seen garam boobu rek la ñuy sol. journaliste yi dal leen dañuy communiquer rek man aw ma jotu communication jot bi ma am lan la soo gisee benn vidéo vidéo bi ngay gis ni communication boo gisaatee vidéo bu bees faj lay doon de. damay jàpp jinne mbaa a jàpp dëmm def ko si nu mu waree. macha allah moo xam ndox kese moo xam dara man aw ma jotu communication. Mm-hmm. du ma sëriñu communication. communication boo xam ne journaliste bi kaa ma jox la lii lii lañ war a def émission bi bu bu soxlawu ma sax nga wax ma li ma war a wax laaj ma lu la neex. d'accord mais lu ma neex laa lay tontu ak koo manti doon. c'est important voilà. alors ñu ñëw ci situation politique Sénégal avant dernière question bi euh, fu mu toll nii coow li bari na lool ci Macky ak Sonko nag Karamba te yow danga am baat ci dëkk bi yow Sénégal dañ la jox bopp euh, jàpp nga ni Macky dafa war a toog ba tey wala Sonko dañ ko war a war a bàyyi mu bañ a bokk. ëpp naa bàyyi. Sonko ëpp naa bàyyi. waaw lu tax faralu ma Sonko faralu ma Macky Sall mais Sonko ëpp naa bàyyi. sompo sonko ma naan xaw ma sax. xaw ma sump xaw ma sonko. man sama yoon si politique sain mais li nga ma laaj rek laa lay tontu. waaw ma sonko ëpp naa bàyyi. amul tax sonko ëpp naa bàyyi. instant bi Sénégal amul ko tane sonko. Sénégal ban politique sain moo fi boo nee Macky Sall sonko ngay wax. Macky Sall li def Sénégal du ko defaat Sénégal kon du fi Macky jógee kan la ñuy wax sonk la ñuy wax. comprendre bu fi jógee Sonko la ñuy wax. parce que ñoo fi nekk ñoo xamante ne tey ñoo fës xaaj bi ñu si des ñëpp ay ay ay mburoog ndambe lañ duñu dara mburoog ndambe bu ñu jaxase lañ rek duñu tus fii Sénégal boo nee Macky Sall koy wax Sonko. Macky Sall li mu def du ko defaat kon ñu koy ñaan lépp ñoom nañ ko def si ak dal. def ko si non violence ba ku si nekk li nga xamante ni cër bi nga xamante ni tey sa wërsëg la yàlla defal la ko Sénégal nga jot ko si nu mu gën a sedde mm. suñu bañ a am noo xamante ne ay xiiroo wala ñaayoo wala benn affaire parce que bëgguma waxe benn côté ñu ne ñu ne fii nga far wala fee fii la far parce que mm. man faruma fenn dëgg la man fi ma far mooy drapeau vert jaune rouge bi mm. man drapeau vert jaune rouge bi laa faral mm-hmm. ni ma ko farale lal la bu dee Macky Sall mooy président na réew mi di am jàmm su dee Sonko moom la yàlla def mu doon président. na réew mi di am jàmm. ñoom it ñu am jàmm parce que yéenewu ma si kenn loo xamante ne tey musiba bala wala benn affaire parce que ñun dañoo dañoo féete position boo xam ne tey jii nii. mënuñu féete fii parce que man si li may doxee. su ma nee woon tey wax si Macky Sall Macky Sall lii Macky Sall mooy sama président Macky Sall mooy sama comme nga suba nga gis. média yi ñenn ñu commencé wax ñi commencé lay saaga ñi commencé di su ma ne woon Sonko mooy sama président nii commencé kii suba nga gis nii di wax moo tax awma président sama président mooy version rouge bi. version rouge bi voilà mais jinne yi kan la gis ku toog 2024. nga ni. jinne yi. sànq am na question boo ma laaj dama ko tëb. ban la li ma doon expliqué la. waaw yaa ngi fii léegi après ñu dem foofu. voilà jinne yi kan lañu gis mu nekk président 2024 entre Macky ak Sonko. jinne yi. ma ne. waaw sa jinne yi. Hmm. kan la ñu gis mu nekk président ci 2024 bii. entre Macky Sall ak Ousmane Sonko. loolu jubloo ko ma si. ah duggagoo ci. non non. d'accord xamul tax duggagoo ma si. lu tax parce que boo gisee samay liggéey sama lépp du ma dugg sax si géemu politicien man du ma dugg seen géem am naa nag ay politiciens yu may liggéeyal mais. Mhm. moom ñi ngay tudd bokkuñu ay géem mais ay politiciens lañ comprendre nga. d'accord bugguma di dugg seeni affaire wala. benn affaire jubluwoo ci daal. jubluwuma ci parce que dañoo yor yéen yi ñii dañoo yor seeni i fenkat ñii dañoo yor seeni i saagakat ñii yor seeni i dulkat ñii yor seen i yàqkatu der. Mm. comprendre nga. d'accord seexuma ñoom yooyu li ma seexal lan la sama xam-xam bii may def jàpp jinn ji lan la jinn wala dëmm. Mm. jinn nga dëmm. des sama nekk si. d'accord euh, question bu nga doon wax ne laaj naa la ko te tontu woo ci lan la woon. ban la ci ban waaw d'accord ban jinne moo la gën a sonal sa jinne yi. ban jinne. moo la gën a sono sa jinne yi nga am yépp. man ban jinne moo ma ci sa yi ma am yépp. Mm. benn jinne sonalu ci man maa leen sonal. am na ko la ciy dominer nag. du kenn. yaa okin du kenn. hey xamal la ma xamal la moo tax du egg du kenn. du si mm. kenn xamal la moo tax du si kenn. Mm. xam nga la mooy Ifaama. Ifaama. ah ma xool Ifaama. Ibaama. Mm-hmm. Ifaama Ibaama. Mm-hmm. soose moo wax mm-hmm. bambara lu wax. bambara bi ne la karamba jineew faa jineew bemba. bambara mu la jineew faa jineew bemba. soose bi ne la jineew bemba. jineew faama karamba. kan mooy karamba karamba ji newu faa ji newu bemba karamba mooy baayu jinne yi mooy pàppay jinne yi mooy maamu jinne yi hmm? si kaw ñu mag ak aas bi ma manti mage soxna si damaa jàpp ba jàpp jinne yi daan ànd ak na am ay ay ñaata at ay junni at man maa leen jàpp man karamba génne leen si nit faj ñoo ñu wér ba mën a nekk seeni liggéey soxna si ñaata directeur société laa faj ñoo xamante ne dañ leen a jële woon seeni société hmm? xeex leen def leen ay liggéey ba mënatu ñoo liggéey ñëpp delluwaat nañ seeni société soxna si soxna si ñaata jigéen ñoo sëyi woon tas mel ni ay marchand ambulant kër guñ sëy dañuy tas ñoo raw marchand ambulant kër guñ sëy dañuy tas bu buñ sëyee fi am jëkkër tas jóge fii demaat beneen kër sëyiwaat tas jógewaat fii demaat beneen kër sëyi tas ñoom laa tuddee marchand ambulant yi ñooñu ànd ñu kat moo faj seen soxla karamba moo jàpp li nekk si moom bañ mën a am jëkkër ba mën a dem sëyi soxna si ñaata jigéen ñoo toog ñoo xamante ne tey jii mënuñu woon a am doom ñaata jigéen ñoo jaar si loxoy karamba. anañu ñeen ñi am nañ ay doom ba tey ñu ngi boot ba yu waxaat yeneen doom yi ñuy am soxna si. soxna si xanaa xamoo nit jóge na fii dem hôpital ak barki Alaaji Fàllu Mbàkke bi ma yaakaar su dee li may wax ni amul balaa jant bee soo yal na yàlla yóbbu sama bakkan bi dem hôpital mënuñoo gis di nekk si biir bi te biir baa ngi toll nii ñu ne ëmbul hôpital ñu ne ngelaw moo si nekk soxna si xanaa xamoo kooku maa ko faj ba waa hôpital médecin yi ñoo déplacé sama biir kër la amee doom bu amul yal naa ñàkk sama nday bi ma jur rawal rawal rawal man duma moroom ñi ngay wax duma seen moroom dama bëgg ñu xeeb moo tax ma tentre sama bopp bi damaa bëgguñu ñu ma moo tax may fecc. damaa bëgg ñu xeeb ma. moo tax may mm. sol ay kilot damaa bëgg ñu xeeb ma moo tax may sol ay tiset su ma neexoon garaam bu yi sol maa leen ko ëppale maa leen gën a xam fi muy jaayee maa leen gën a xam li muy jar mais soxlawu ko damaa bëgg ko ma xeeb. Oh. mbaay xam-xam du garaam mm. bu xam-xam du ay ay yére yu rëy. Allah soo gisee su ma aaloo damay jooy. parce que damay gis ne ñii li may def sax xamuñu ko. ñii li may gis sax ñoom dañ kaa xem mënumaa jooy si émission bi du ma jooy parce que vérité laay wax. dëgg la dëgg la. jamais. <laughs> Sénégal nañ defaraat toogaay yi nan lañu war a defaraate toogaay yi parce que. Oh. yéen nii yéen journaliste yi yéen waru leen ko nangu. parce que gis naa fi sëriñ yu bëri yoo xamante ni ñu ngi fii Sénégal gars yi di leen dékk ay micro. barki hmm. Seydina Mouhamed su dee li may wax nii amul bu fa xam-xam nekkee yàlla bu ma fanaan. mais duñu yàgg après. barki sëriñ Fallou bu fa xam-xam nekkee yàlla fanaan xam nekku fa. d'accord amul problème léegi sànq da ngay wax lu am solo. wax nga ba tudd dëmb. ñu bëri naan dëmb amut mais yow da nga tudd du dëmb dëmb mooy kan kan mooy dëmb. dëmb. dëmm mooy kuy nekk këram di cuqati sa buun gi ah, dëmm noonu lay def déggoo ma <laughs> kooku mooy dëmm parce que dëmm xam nga tur dëmm dafa rëy. waaw. imagine tey ku tëdd këram di nelaw nga xool ko mu ngi tëdd di nelaw de boo dugg ubbee buntam gis ko mu tëdd fekk départ na. Mhm. fan la départ dem fu dem Dakar a dem wala Guinée wala Casamance te pourtant jëmmam mu nga fa kan la topp pourtant diw la dem de mm. solu na diw. si mhm. guddi gi diw moom bu doonee borom bopp bu tëddee si géndu day gis di xeex nit wala benn affaire def xoola jaayante kii métti di gis yu bari après bu xëyee xam nga yooyu yëpp moom si boppam moom moomu genre gént la koy dikkee. Mhm. dëmb bi moom it fa muy mooy këram. Mhm. man damaa gis lu ne dañ ma attaqué heure bu ne dañ ma attaqué heure bu ne. pour néew néewal ma doole. attaqué nañ ma heure bu ne. Mhm. pour néewal ma doole. jinne yi. ni ma dëmm yi mos a attaqué jinne mosuma ko attaqué parce que man jinne ñemewu ma yéen dëmm yi dañ may xam xaaj bi ñenn ñi ma ak ñoom ñooy juddoondoo wala ñu xam sam papa la ñu xam ñeneen dañ lay jéem a sonde doomu diw la xaaral ñu xool lan la làmboo ñi ma si mos a sonde ñëpp si loolu lañ ma sondee ku ma koy mos a def. Mhm. day nga diwoo. baal ma si li ma ko waxee. Mhm. ku ma si mos songu. day nga diwoo day diwoo golo bu reppee dëgg day day diw ko ci kanam gi mm. noonu laa ko mën a waxee sama communication soxla bu rafet li ma soxla mooy xam-xam bi mu ngi fi wala moo wala nekku fi na malaat bi ñëw ñu jëf ko léegi nga teg say loolu moo ma gën a intéressé mais sama communication nu ma neex laa koy waxee pour lépp ci cadre dimension ban pour ñu gën ma xeeb d'accord voilà c'est important kon leeral nga mbirum dëmb côté boobu féete na boor. dëmm mooy nekk këram sol na ngelaw goo xamante ne tey jii da ngay lay xiirtal tey soo demee daje koo xamante ne tey dalaa war a yóbbu si karamba. day yàq xelu kooku ne la yóbbu ko hôpital mu ne yóbbu ko sëñ diw yóbbu ko sëñ diw moom kay xamul dara booy be xam nga jaxas sa xel pour nga yóbbu ko sëriñ boobu sëriñ boobu lekk sa a wér hôpital mu digal ko hôpital nga yóbbu ko hôpital du mos a tey boo waree am boo doonul jàmbaar champion dëgg boo nee bërët sax boo xaful oto bi nga yor day paan doo egsi loolu seeni pexe la te fu ma leen fekk damay décanter situation boobu mën nañu ci dara parce que émission bi may def bii ñuy def nii. Oh. ay dëmm dinañ ko seetaan ay jinne dinañ ko seetaan maay seen baay si boo leen kontaanee maay seen baay si boo leen meree maay seen baay 3 heures 10 laay joxe rendez-vous jineew faa jineew Bemba li may def aw ma si lu may tiit tey ku jinne ñemewul dëmm ñemewu ko kon waroo ko tudd di tudd ay turu sëriñ Baay Faal. ba soxna si man damay taxaw xool nit kaw nga xool ma nga arrière ba ne këlëb daanu ñoo ngay wax kooku mos a gis mu def ko ah, mu ngi nii télé amul nga ah, téléphone baa ngi nii lépp boo bëggee dañ lay won nga seetaan. waaw. lu ne fàng la. wan ku ko weddi demal tàppe TikTok. ñun li ñuy def si xam-xam damay toog ma ne man est-ce que xam-xam bii ma yàlla may est-ce lii jaadu na. dafa bari ci yow daal. déglul dëmm bi li muy wax déglu. mooy sa gisi malade gise malade bee moo yuuxu fa la maanaam xam-xam laa lay woon boo xamante ni tey amul laa mais amul amul da nga koy suivre TikTok aussi waaw fii déglul rek da nga koy ñaat nit nga mos a lekk yow mii waaw dama laa bëgg a lekk dama lay lekk yow ngay avancé mi daw muy nii lu ma ko soppee benn mbuusu ndox. Hmm. lu ma benn mbuusu ndox ma naa. ma ne ko c'est sa ndox yi fukki neex a faral. macha allah macha allah. maanaam damaa neex a faral xamul na damaa neex a faral damaa dajale trois cent soixante-treize mille. yëkkati micro man damaa neex a faral. Mm-hmm. su dee coupe damaa rangale coupe yëpp. te ñu bari dañ naan nga luyee nit yi te xam nga ni lii du luyee nit. lii fan la qualification fan. coupe du monde. seetaanal. ah son bi son bi wàññi ko YouTube bi dañu koy signalé waaw ma seetaan noonu rek voilà. waaw waaw. xoolal bii bi ku ko dugal. da nga kaa gis gisoo ko xam gisuma ko dugal karamba maanaam dañ lay wax maanaam gis nga tey àdduna bii nii si des am nañ ci preuve lii fal la waaw Dubaay Dubaay la woon yére bi ma sol ki ko sol mooy dugal balde damaa def lu ne ñëw toog soxna si mm-hmm. kon boo mooy tudd tudd sëriñ yi da ngeen bëgg a may buzz dama naan sax dañ laa fay xaalis pour nga bëgg ñu ñu dégg leen fayu sama réalisateur moom mooy signaler temps bi non comme temps bi. yooyu yëpp garaawul mais juste lan nga bëgg a tënk lan bëgg a tënk. li ma bëgg a tënk lan la. waaw parce que. Mhm. xam nga mhm. dama jëm si benn événement boo xam ne événement bu mag la. événement boo xamante ne tey. nekkuma fi di jaay rëy wala di ñor di xam-xam wala di ñor di benn affaire non non. parce que damaa jël sama bopp wàcce ko maase ko ak ñëpp. moo tax ma bëgg si yéene bépp sëriñ boo xamante ne tey yow sëriñ na wala dangay liggéey wala am nga malade boo xamante ne faj nga ko ba sonn mu tëla ngir yàlla maa la ko ñaan ak jëmmi sëriñ Fallou la onze indi ko boo ñëwee Karamba gratuite la la koy fajal yow sëriñ boobu. kon waxaalewu ma. sëriñ parce que dama faj naa ba faj sëriñ ñaata sëriñ laa faj. Mor Mor ñaata sëriñ laa faj. Hmm. su amulee balaa jant soo yàlla na yàlla yóbbu sama bakkee ñaata sëriñ laa faj soxna si damaa faj ba faj jinne hey damaa faja faja faj ba faj jinne jàpp jinne si ne jinne bi feebar ma fajaat dina bi maanaam li may def du ay wax gis tey xanaa xamoo weñ bu daggee moroomu weñam tëgg yi ñoo ko farfarloo dëgg la wala xamoo loolu dëgg la man ba tey li nga wax sànq tudd ay tur moo ma metti de ba tey si laay tontu de. gis naa ni metti na la trop. damaa metti de. waaw romb xamul tax damaa metti xamul tax. comme li ma lay wax rek weñ bu daggee moroomu weñam tëgg yi ñoo ko farfarloo. Hmm. ñoo tànn weñ bu war a dagg moroomam jël beneen weñ teg ko si pour mu dagg moroomam. te pourtant weñ boobu noonu. Hmm. boo ko tegee war ko mën a dagg non damaa mer xamul tax ma mer ñooñu du maag ñoom. ñooñu ñi ngay tudd maag man man du maag ñoom. Hmm, bu tudd turam parce que da ngay tax da ngay da ngay tax ma kii ko parce que dégg naa dégg naa na yoo dagg dégg naa dañoo dagg rastaami xam nga. <laughs> dañ ko bëgg dégg nga comme eh, temps bi moo ngi jeex. xamante bëgguma bëgguma di wax si ñoom quoi parce que après day mel ni yéen ñaa yéen a mhm. te man du ñu man man du ma ñoom man si preuve laay liggéey. sama kër ku fay ñëw lan ngay wax damay feeñ si vidéo yi bëgguma feeñ si vidéo tey kuy wane preuve nga naan bëgguma feeñ si preuve yi bàyyi loolu sant yàlla la. dëgg la am déet. Mhm. tey kuy wane preuve yaa ngi ni sa mënaat filmeel yow mënaat di ñëw lu werante woo kii am na xam-xam wala amul xam-xam ne xam nga looy wax. bëgguma feeñ si vidéo yi parce que xam nga ne kii preuve lay wone soo ñëwee nag nga doon fenkat wala naa feex nga yem fale si buntu kër gi parce que fii lu ne fàng la kenn du ko jeex maa ngi leen di jàll wala benn message du faju bi du ñëpp la ñuy filmer am na ay kilifa yu fii ñëw dinañ ñëw ba dem te kenn du leen filmer duñ feeñ si téléphone duñ feeñ si dara am na ñoo xamante ne tey comme sànq si dimension bi ma yemoon dama ko dama ko romb mais dama siy dellu si mooy comme xale jigéen yi nga xamante ne tey dañuy sëy tas tas ñi am ngoro daq ki nekkal wala suwaat xol bu bon moo leen fay jëlee wala suwaat ay wax yu sew wala benn affaire ñu yaakaar ñoom la fekk du ñoom fekk du dara maanaam loolu moo laxas si ñoom la laxas si ñoom lan la fekk dañoo am benn àndandoo boo xamante ni tey àndandoo bi lan la mooy àndandoo bi nga xamante ne tey dalay fiire ne la lay fiire tey lan la àndandoo bi góor la moom la yenn sëriñu tàppe di naan faru rab tey bu gisee benn góor góor bu la bëgg wala benn affaire mu leer ne kii dalay lay takk day fexe nu mu la merlooyee wala mu dox seen diggante pour yàq ko su si jéemee ba sonn mënu ko ay yàq gaañan bi dëgër bopp ba takk la mu xool nu mu jéem a kalee ba boo la takkee doo leen mën a am doom yow soo dëgëree bopp ba jaayante ba ngeen am doom mu xool sa doom nu mu koy def ba doom ji du mën a dox wala du mën a wax mooy xale yi ngay gis duñ mën a taxaw duñ mën a dox duñ mën a wax te dañuy wéeru rek am nañ ay 3 ans 4 ans 5 ans loolu moo koy indi. waaw loolu laa am lu may jàllale loolu laa am lu may jàllale lu ma leen wax bu la 11 incha allah si kattanu yàlla suñuy borom ñun de ay taalibe lañ mënuñu dara mais yàlla suñuy borom mën na lépp yàlla bi nga xamante ne yow yàlla yaa ëpp doole si àdduna yow yàlla. képp ku am doole si àdduna yow yaa ko may doole nag ñu daan doole la yàlla yàlla nag ñu ko gën a yokkal bañ mën a dimbali jaami si li ñu dénk parce que jaam yi yaakaar nañ xas naa ba jàllale annonce bi te ñëpp dañ ñëw yaakaar si karamba gannaaw yow dañ ñëw yaakaar si karamba pour bëgg a faju yow yàlla yàlla nag ma dooleel ba ñi nga xamante ni tey dañoo ñëw pour yaakaar si man pour faju man de manuma mais li nga ma dénk rek laay wone parce que yaa ma ko dénk amoo kenn koy ëmbal sa mbubb naka am dékkal xaalis a ngi nii ku si nekk da nga ko cërale cëram yow yàlla maa ngi lay ñaan si cër bi nga ma cëralee yal naa si dimbali doomu aadama yi nga xamante ne tey dañoo ñëw yaakaar si Karamba pour faju ma dimbali leen ci jëm ngir jëmmi Serigne Fallou ma dimbali leen faj leen gratuit képp ku si ñëw ticket kese ngay dagg me bi boo fi ñëwaatee pour bëggaat lu mel noonu dinga nga waat ba mat 6 mois chaque 6 mois lay am parce que damay bañ a jàllale ñu yaakaar Karamba fajam gratuit déedéet man samay jinne dañoo réew waaw man samay jinne dañoo reew comme ni ma reewe ay gëléem la ñuy laaj ay nag la ñuy laaj ay xar ay bëy ay ginaar soow la ñuy laaj wala nga dem ba géej wala nga xëppoo soow ñoom yooyu la ñuy def te loolu ay ay waxi kese moo koy jënd moo tax ñuy def ku fi ñëw da ngay dagg ticket dix mille francs boo yoru sa ticket dix mille francs jarul ngay ñëw mën ngaa toog sa kër boo yoree sa attaay nga xéem ko suñu yoon nekku si boo ñu neexalul duñu la neexal ñaata nga waroon a fay la nga waroon a fay ñun laaju ñu la ko ticket kese lañ la daggaloo si ticket boobu boo koy dagg day ànd ak xol bu sedd de dix mille francs boo àndul ak xol bu sedd man bul sax ñëw d'accord jërëjëf waxewuma ko pour dara parce que su ma koy waxee pour dara yaakaar dañoo def pour pour kii wala benn affaire dañ koy def pour dimbali jaami malade yi ñëw fii di ñibbi waat te yoruñu xaalis moo bari damaa sonn si loolu. loolu laa leen mën a dimbalee. wasalaam sama yoon si li ngeen di wax. <laughs> jërëjëf jërëjëf ça a été un grand plaisir ça a été un grand plaisir ñu ki nga xamante ni mooy doomu ndey Kounkandé ah. dans Soxo ay ay. <laughs> ah uh-huh. non mais bàyyi leen ma tax doo ñu jubaane. bul ni doomu ndey. man doomu doomu benn duulkat. ah man doomu ndeyu benn duulkat. man duma ma doomu damay wax direct. dañ may caméra nga ma dëpp. doomu ndayu maak benn ndayu duulkat. ndey bi dama ko si yokku doomu ndayu maag benn ndayu duulkat. yaa ngi may dégg yaa fi tudd turam yow mi fi tudd turam xoolal maa doomu ndey ak ndey benn duulkatu sëriñ dama ko bëggoon rafetal rek ngeen juboo. soxlawu ma ko juboo juboo amul problème. man lu may doyee nday duulkat yooyu di duul rek di fen rek ñàkk jom seen ngan di tuun. tuun yu mel ni lëmbalu naar. maa tey. karam <laughs> woon ñu dalal ko fii. ci. suñu biir set nga xamante ne naa leen ko sénégalais yi ñoo ko namoon moom karamba mu nekk ku oyof nag ndax dañ ko fekk ci liggéey waaye bàyyi na lépp lu muy def pour accorder ñu temps bi ça a un grand plaisir ci présentation bi fii Touré la la reine du Sine et du Saloum ca technique ba Alaaji Fàllu Mbàkke euh, ca chauffeur ba nag suñu euh, chauffeur bi nga xamante ni moo ñu jëlee Dakar ba Mbour euh, di Alaaji Samba mu sell mi sama manager sister Chicha di ko bëggee bu baax on vous donne rendez-vous très bientôt incha allah